di am mbegte bu baax a baax di teew ci jataay bi di dalal euh, sunu gan Serigne Bassirou Mbacké mu Serigne Khadim Awa Ba ngir mu ñëwoon fii tey doon seet si liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko fii ci jumaa ji ci ndigalul Cheikh Mouhamadul taxa fekk si fi kilifay daayira Muxaddamatul Xidma muy Serigne bu so mi nga xam ne moom la yoon léegi waaye sëriñ Abdul Ahad Bousso Moutalib mi nga xam ne mooy secrétaire généralu daayira bi mi ngi ni toog sëriñ Abdul Ahad maam Asta di président commission sociale et relations extérieures ak sëriñ Abdou Khadir Bousso muy responsable communication mu ànd ak sëriñ Abdou Khadir Bousso mu sëriñ Abdou Khadir Mbacke mu sëriñ Modou Muxtaar euh, sëriñ bi comme niñ ko waxee ci tàmbali bi daayira Moukhaddamatoul Khidma dafa amoon yitte ju mag ju rëy joo xam ne xam nañ ne tamit budget bi seer na te mu war a bokk ci liggéey bi ngir xam giñ la xam nag ci ñi nga xam ne sëriñ bi ñor na la ak jumaa ji ak lu baax tax yitte ji biñ toogee waxtaan sunu xel dem ci yow ngir ñu gaaral la yitte ji nga xam ne jumaa ji am na ndax ñun depuis 1994 ci ndigal sëriñ Saliou sëriñ moo ñu dénk jumaa ji ak penc mi ngir ñu sàmm worma ji gën ko yokk sëriñ bi sax ma koy sàmmal boppam ak lu aju ci wàllu entretien bi ak lépp loo xam ne mooy tax ku fi ñëw rek da nga gën a xam kan mooy sëriñ bi ci ni nga ko doon déggee ngir sàmm warma ji nag jamono dafa dem ba laaj yeneen jumtuwaay dëgg la fu ñu toll ay nit a ngi fi di xool li nga xam ne yellu fi waaye segam jamono laaj na ba nouvelle technologie avancée ba nga xam ne mën nga am ay jumtuwaay yoo xam ne nit ki danañ mën a gis nit balaa mën a def dara leneen lu jubut moo taxoon ñu amoon yitte tey jumaa ji ak biir jumaa ji ak li ko wër am ay caméra surveillance yoo xam ne dana permettre nit ki gardien yi nga xam ne ñoo fi nekk 24 sur 24 toujours dana am koo xam ne dafay nekk fii ngir saa su gisee nit di bëgg a def loo xam ne bokkut ci lu jub mu mën a tele a ñi nga xam ne ñoo fi nekk su ko defee ba noppi ba jàpp ne rëcc na caméra yi danañ ko wane ak lu mën a doon noonu tamit lañ ko yittee woon ci morgue bi nga xam ne fa la ñuy denc ñi nga xam ne dañoo wàññi foofu tamit wax dëgg yàlla yitte jooju it saafarawu la suñ ko xoolee buñ sukkandikoo ci techniciens yi nee nañ mat nañ 78 caméra budget bi xam naa ne nanguwul ñu ko tudd Cheikh Amadou Basir mi biñ ko ko waxee nag mu waxtaan ci ak benn xaritam muy El Hadj Ablaye ñu ko waxee wax dëgg yàlla mu taxaw ci. xam ne yabal nañ fi ay techniciens ñu am fi daanaka weer ak fukki fan ak juróom ngir def liggéey boobu yàlla dogal na liggéey boobu sotti na niñ demee woon ci sëriñ bi laaj ko ndigal ndax ñun duñ def dara ci jumaa ji te amuñ ci ndigalul Cheikh Amadou Mountakha tey jii tamit ñëw na fii ci ajjuma ji ñu ñu wan ko liggéey bi ni demee moom ci boppam bi njëkkee dem këram ngir doon ko wax ne ko liggéey bi noppi na ci ne ko dañoo bëgg mu ñuy jàppale moom sax moo nañu lu gën a lu leen gën a jàppale ci wàllu sécurité bi tey jii loolu la wax sant ci ñaan ci ba noppi jaajëfal kon bii dugguleet ci sa diggante ak daayira Muxaddamatul Xidma ci bu ñu amee ay yitte wax la ko yàgg nga ñëw ci koor gi di ñu ci fekk yàgg ñëw ci ci ci lu mel noonu kon nag yitte ji wax dëgg yàlla ni nga ko saafara te sa bopp nga ko defal ndax sa maam nga ko defal ñoo ci bokk yam maanaam jumaa ji moom du lenn kenn lépp ñëpp la lu nekk ku ci wax fiir li man banaw bina aharra fi wax fiir li man amarahum bi jamian wali jamihi man ahanahum ala binaiha allazi bi fadli katala te jàpp naa ne ku ci jëf dàkk nga mbégum sëriñ bi te nit mën naa am ay milliards nag te dërëmam du ci dem ku ci war a def rek moo ciy def te ñun nag da njawatuk sëriñ bi lañ ñoo xam ne dañuy liggéeyal sëriñ bi lépp luñ gis ne lu suñ kees man duñ ko jéggaani luñ gis ne nag xëy na buñ ko nattee ci kees gi dana ki danañ xool ci taalibe sëriñ Tuubaa yi ñu tàllal leen loxo ngir ñu jàppale ñu ci loola mu wana kon nag ñi ngi am mbégte ci loolu bu baax di ñaan li ngeen ci jublu ak yow ak sëriñ Ablaye li ngeen ci jublu suñu borom fay leen te bokkuñu fay te ñu yàgg ànd yeneen yitte yoo xam ne dafa yitteel sëriñ bi te aju ci jumaa ji ak yeneen kon daal kàddu yooyu lañ doon ubbee di sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu asbillahi min asheytan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa radiyallahu an cheikhina cheikhina Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasul mbokk yi ñu ngi yëkkati sunu kàddu ci kaddu yu gàtt ndax fii sëñ Abdou Lahad bu sa daaneele <clears throat> fi la ñuy yëkkatee sunu kàddu mooy sant yàlla sun sunu borom subhanahu wa <clears throat> julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu taala di ñaan sunu sang ba xaadim rasul ak mbooleem njabootam yàlla gën a yokk seeni maqaam ak seeni daraja di wax rek ni sëriñ Muntaxa Mbàkke yal yàlla guddal yàlla sàmm ko aar ko euh, di sant daayira Muxaddamatul Xidma ci turu seeni kilifa muy imaam ratib bi sëriñ Maamun Busa ak sëriñ Afiya Busa ak mbooleem imaam yi ki nga xam si ni ñoo nekk ci jumaa ji yëpp ak noddukat yi muxaddamatul xidma képp kuy murit ameen nga leen jukkal ndax li nga xam ni kenn ku ci ne ci ñun fardu aynin la ci yow ñoom ñooñu ci yóbbaale géew te mooy di sàmm lépp lu aju ci jumaa ji ak di ko taxaw ak di xar seen tàng tugay ci lépp loo xamante ne si mooy xorma yi li wër jumaa ji kon ñooñu eh, buñ tàllalee seen loxo ci lu jëm ci liggéey boobu nga xam yéen ko bokk te ñakkal la fi nga xam ne yow yaa ngi ci sa yittey bopp ñoom ñu nekkal la sa yitte yi nga xam si ni ci nga waroon nekk ñu nekkal la ci nekkal ci mbooleem murit yëpp nekkal ci mbooleem njabootu Serigne Touba gépp bu mel ne njabootu Serigne Touba mooy képp ku nekk ak murit rek yaa ngi ci biir kon bu nu demee ba nga xam ne jamono dox na ba ñu am bëgg-bëgg ni ko sëñ Abdoulaye bu sa waxee noonu la demee ñoom lépp loo xam ni euh, seen kees matt na ko duñ ko jéggaani fenn waaye nag lépp loo xam jàpp nañ ni jéggaaniwu leen ko sax baatu jéggaani d'accord ma ci ndax jéggaani mooy ku ci bokkul nga boole ko ci waaye ñi ngeen di woo ak bëgg di bëgg ñu def ci seen loxo dangeen ngeen leen a bëgg a dimbali ndax fii ku bëgg ku amul ndimbalal yàlla wala yàlla bëggu laa dimbali yàlla du la xirtal ci nga def fi sa alal ida araada bi abdin xayran fata alayhi baabal amal wa axlaqa alayhi baabal jadal yàlla bu la naree dimbali da lay jëfloo da lay buntu liggéey bépp bunt boo xamante ni si ni boo ca jaaree la nga bëgg doo ko am suñu borom da la koy tëjal te buntu liggéey nag bi ci ëpp ci murit mooy jumaa ji ndax jàpp naa ni fi nga xam ni ki fi tëdd moom la yàlla def ñi daan tagg yonante bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp moo ci moo ci kawe ñëpp bu yàlla dogalee mu nekk ci bërëb bërëb boobee képp ku fa nekk di fa liggéey ku la cay dimbali ka ci ciy dimbali ku ko cay dimbali ka ko cay dimbali ku ko dimbali ba fii ba addunay tukki seenub yoon yàlla rek moo ko xam kon nag bu ngeen taxawee nekk ci loolu addunay ndox ba nga xamante ni suñ jumaa ji gis ngeen ni adduna bépp foo dem dafa sécurité te sécurité li ci ëpp doole mooy fexe ba informatiser lépp nga xam ni fu nit nekk bu fekkee intention mooy def lu bon wala yàq wala jël alal jàmbur ngeen man koo détecté man koo topp caméra yi di ko topp ba ngeen ba bu fekkee dafa bëggoon def lu jubadi bu ko defee ñu jàpp ko kon loolu jàpp naa ni yéen a ngi am yéen a ngi jox sécurité ñi nga xam ni ñooy bëgg ñooy ñëw fii di siyaare si ñi nga xam ñoo fi ñëw di fa julli si ajjuma ñi nga xam ñoo fi ñëw di fa naafila ñi nga xam ne duñ ay murit duñ ay sax ay jullit waaye ñi ngi jóge ci àll ba ñëw pour découvrir lan mooy Serigne Touba lan mooy Touba jàpp naa ni buñ fi ñëwee te danañ xam ni yéen fi jamono yéen a ngi fi kon nag loolu wax dëgg yàlla euh, bu ngeen demee ba bëgg ko yàlla dogal ngeen tombe ci taalibe bi koo xam ni taalibe Serigne Touba muy Serigne Abdoulaye ja ngeen wax ma ko ma wax ko ko ba ma ko waxee da ko rafetlu euh, ma toogoon nag am lu ma doon listixaar ci moom di xam ba xam moom li ko yàlla dénk sëriñ bi nangu na la mu def ko cumaa ji wala déet ndax lii bari na ñoo xam dañ koy mébét man bari na ñu bari ñoo xam ne dañ koy bëgg di ci wax ak nit ki wala ñu ci wax ak man bu ñu demee ba ca fin ba xaj na ko jàpp leen ba duñ ko def moom nag bu yàlla dogalee mu dugg ci noppam rek mu daal koy def yëfi boppam farlu ci <clears throat> taxaw ci ba yàlla dogal mu mu mu réaliser ko comme ni ngeen ko bëggee woon damay jàpp yéen yéen la war a sant waru leen ko sant waru leen ko gërëm ndax yéen a ko dimbali ndax dimbali nit weesul muy taalibe Sëriñ tubaa yaakaar Serigne Touba te Serigne Touba ñaanoon boroomam ni ko wax di xawaay jël lazina daa moo fii xidmati waxal lahum maaraamu yàlla ña nga faj ajo ña nga xam dañoo sax ci dima liggéey te nga may leen la ñuy sàkku te moom mu bëgg ngërëmal Serigne Touba àdduna ak alaxira jàpp naa ne bu ngeen ko woowee ci liggéeyu jumaa ji mu ñëw defal leen fi li ngeen bëgg loolu ndimbal la ci moom kon moom moo leen di sant di leen gërëm ndax yàlla mënoon naa dogal occasion bii du ko am ba mën a fab alalam def ko jumaa ji loolu nag mu nekk ab tàmbali seen diggante ak moom ndax yow sëñ Abdou Lahad à chaque fois da nga wax ni ma Ablaye mi ngi ñuy jàppale ci koor gi ak yëpp Ablaye yéeneem ëpp na loolu li bëgg ci seen diggante mu xaddimatul xidma mooy lépp lu ngeen nekk mu bokk ak yéen nekk lépp loo xam xam nañ ni seen yitte la lu mu ca man dana ko def ba def ca lu mënu ndax xam na ni jëf ba jëf jeex def fi nga xamante ni si ni fi la ñuy jaamoo yàlla di bërëb bi nga xamante ni si ni képp ku fa def sa alal sag fay ëllëg suñu borom rek ko te lenn jiituwu ca jàkk lenn jiituwu ci jumaa lenn jiituwu bërëb boo xam si ni fi la Serigne Touba tëdd jàpp naa ne bu ngeen ko ci woowee loolu ndimbal la la ci moom ndax jumaa ji ñi ciy yëkkat seen alal di ko ci def ci yoonu murid ñi yàlla dénk alal bari nañ mais ñi yàlla ba seen alal di fi dugg ñu néew la loolu nag day wane ni Serigne Touba mooy tànn ci ay taalibeem ñi nga xam seen alal dana fi dugg kon nag donc maa ngi ciy maa ngi koy sant moom di ko gërëm di delluwaat di leen wax ni rek moom tàllal na leen loxo ñu ne tàllal nañ leen loxo ndax ñun liggéey bi ak yéen ñun ñoo ko bokk da ngeen ñoo nekkal fii ñu nekkal leen fële lépp loo xam ne xam nañu seen yitte la wala muy seen bëgg-bëgg lu ñu ca man guddi danañ ko def lu ñu ca man bëccëg danañ ko def ndax suñu bopp lañ ko defal ndax fii ngeen nekk ñun ñoo fi waroon nekk kon tey jii bu ngeen ñu fi nekkalee nga xam amu leen benn yitte bu ngeen xëyee seen kër fi ngeen di ñëw fi ngeen di yenn ba ngoon jot ngeen delluwaat seen kër te kenn xamul seen soxla loolu day wane ni yéen li sëñ Tuubaa bëgg yéen nga ci loolu te sëriñ Tuubaa ba muy ñaan boroomam wahab lanaa zurriyatan tuddiimu العمل الصالح يا خديم زرية طيبة تجدد نهج نبي المصطفى تجدد نهج نبي نهج نبي المصطفى nag weesuwul julli ak jàng ak jàngale ak di xeñtu lépp luy lu baax te loolu yéen ci loolu ngeen nekk kon dañuy jàpp ni loolu mu doon ñaan boromam ci yéen la ko yàlla tombeele kon nag ngeen xam ni weeru koor waa ngi ñëw ñu koy anticiper ak yéen di leen ci souhaiter yàlla defal ñu ci weeru jàmm defal ñu ci weeru xeewal weeru naataangi ñu war ko ci jàmm dugg ci bismillahi rahmaani génn ko ci alhamdulillahi rabbil alamin xam ne nañ ko daan ànd ak yéen bu soobee yàlla ren jii noonu lañ koy ànd ak yéen Abdoulaye Diaye it nam ko daan ànd ak yéen noonu la koy continuer di ànd ak yéen may woo taalibe Serigne tubaay di def appel di ko lancer ci képp koo xam taalibe Serigne Touba nga te yàlla dénk la teraanga te nga xam ni man amila saalihan fa li nafsihi man amila saalihan min dakarin aw unsa wa huwa muminun fala nuxiyannahu xayaatan tayiba képp koo xamante ni si ne bëgg nga ëllëg foo nekk sa yiw di gën di dolleeku sa xewal di gën di dolleeku te la Sëriñ Tuubaa wax ni wa arxabul ashyaa lil amwaati raddun ila dunia ma alxayaati walaw suwaayatan faqan li yamalu saalihatan tanfahum in xafalu képp ko ña nekk foofu la ñuy xeeme ma di ko sàkk muy dellusiwaat àdduna jëf benn jëf bu baax te jëf ju baax joo xam ni benn jullit def na ko la ci ëpp doole mooy fexe ba euh, nga jox ab jullit mu lekk nga fexe ba gindi ab jullit jàngal ko nga fexe ba ab jullit bu ñëwee man a jàmm yàlla mën a def ay liggéeyam jàpp naa ni jëf jooju jenn jëf gën ko rëy kon maa ngi woo taalibe Sëriñ Tuubaa di woo murid di woo nit ñu baax ñi ngir ngeen xam ne muqaddimatul xidma yéen lañ fi nekkal te nit fu mu la nekkal fu nekk la war sa diggante moom war nga ko def war ngeen leen jàppale ci seeni projet ñoom waruñu di laaj xaalis wala kenn benn dërëm bu dul liggéeyu Sëriñ Tuubaa kenn du leen gis kenn du leen dégg kon maa ngi lancé appel fépp fu ab murid nekk fépp fu taalibe Sëñ Tuubaa nekk te yàlla dénk la teranga Moukhaddamatoul Khidma projet yaa ngi fi yaatu na lool ñu ngi leen di woo pour bëgg ngeen ñëw jàppale leen si di lancer appel ci président de la république fii ñu toog dañ fi enregistré ay émission te jàpp nañ ni Touba ni mu toll ak mosquée Touba ni mu toll grande mosquée Touba ni mu toll jaadu na mu am television télévision bii nag bokkul télévision yi xam dañuy xeex tasawuf wala dañuy galgal kilifa diine wala dañuy galgal lenn loo xamante ni si lu jëm ci état la wala lu demee noonu ñoom li leen ñor mooy génn njàngaleem Serigne Touba pour tasaare ko ci àdduna bi fépp fu taalibe Serigne Touba nekk nga mën ci sukkandiku di man di xam ni kat ñoom ñi ngi fi euh, foo mën a nekk ci àdduna bi nga xam ni tuubaa mooy sa royuwaay euh, ngay mën di seetaan télévision boobu di ci mën a gindikoo di ci mën a jàng sa diine di ci mën a jàng si réew di ci mën a jàngal lan mooy patriote ndax loolu lépp Sëñ Tuubaa jàngale na ko ab jullit nan la war a mel ki nga xam ne dafa nekk université di jàng la ko Serigne Touba digal ci boo demee ci kun kaatiman di durr wal bu saa dana fa nekk te loolu lépp na tey jii bu fekkoon Moukhaddamatoul Khidma am nañ projet bii nga xam ne bëgg nañ ko muy télévision président de la république maa ngi lay lancé appel nga jàppale leen ban am ko bu booba jàpp nañ lu baree baree bari loo xam ay jafe-jafe la ci réew mi danañ ko saafara ndax danañ delluwaat nit ñi ci lan mooy ak taalibe danañ delluwaat nit ñi lan mooy njàngaleem Serigne Touba danañ delluwaat nit ci lan mooy liggéey te loolu nit ñi buñ delluwaatee ci lan mooy taalibe lan mooy yar lan mooy liggéey lan mooy jàng jàpp naa ni li nga xam ne mooy xew ci réew mi yooyu yëpp yàlla daana ci dimbali ba nga xam si ni képp kuy ab taalibe wala muy ab murit wala muy ab jullit bu dee seetaan télévision boobu yàlla dana ko épargner ci loolu kon donc maa ngi sant maa ngi leen di dollee sant di leen gërëm di leen wax rek ni ñun fi nekkoon démb ak yéen foofu lañ nekk ndax fii xam nañ ni képp ku yàlla narta dimbali du la gindi ba nga ñëw fi mm-hmm. doo boo fi ñëwee du la gindi ba nga def sa alal def ko ba nga ba sa xol yàlla namm ko nooyal ko gindi ko ba nga mën fa yëkkat sa dërëm di ko fi def kon ku fi def sa dërëm rek xamal ni teg nga ko ci loxol Serigne Touba weeru koor waa ngi ñëw maa ngi lancé waat appel ci borom alal yi nga xam ne yàlla dénk na leen teranga premier jour ba 30 jour ci weeru koor gi première ba fanweeri fan yi jeex jour dañ fiy def ay ndog ndog yu ñu fi def ay millions des millions des millions fu doxandeem jógee bu ñëwee dana ci lekk te dañoo wax ne luqmatun tashudd batna jaain afdalu min binaay alfi masjid benn tib boo yëkkat leel ko gémmiñal aji xiif moo gën junni jumaa yoo xam ne tabax nga ko ngir ni ca yàlla rawatina ku woor ba ngoon nga yëkkat benn tàndarma jox ko la ca nekk ci tiyaaba kooku kenn xamu ko kon nag maa ngi woo jullit ñi di woo taalibe di woo wëllëre yi di woo mbokk yi di woo xarit yi ñu gën cee jàpp taalibe yi wëllëre yi xarit bu ñu ko waxee nag waxuñu rek ay murit ndax sëñ tubaab moom ñëpp la njaboote ba muy ñaan boroomam ñaanu ko ni ko irham jamial waraa la wax yàlla na nga yërëm boole mbindaafoon yëpp mbindaafoon nag lépp ngi ci biir murit a ci biir jullit ci biir kii chrétien ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir leneen la nga xam mooy dox diggante nit ki ak boroomam nag kooku ci pas-pas lay doon ak xol ak euh, na xam si ne noonu ngay jàppe sunu borom noonu nga koy jaamoo noonu nga koy fonke noonu ngay fonke ab yonenteem noonu ngay gëmee alxuraan fa la différence bi nekk waaye nag ba muy ñaan moom ñëpp la ñaanal kuy mindeef rek dugal na la biir kon donc ñu ngi leen di sant di gërëm wax rek ni jataay moom rafetlu nañ ko bëgg nañ ci sëñ Abdoulaye jox xolam sedd na lépp loo xam ne xool ngeen ni yittewoo ngeen ko wala daayira bi yittewoo ko bu ngeen ko waxee moom dana ko def ndax xam nañu amul kenn ci yéen koo xam ne mas naa yëkk téléphone am woo ko ni ko damaa soxla li wala damaa bëgg laa amu leen ci moom soxla bu ngeen ko soxlaa rek lu mënta ñàkk te mooy li nga xam ni lépp ñun ñëpp ñoo ko bokk te mooy jumaa ji kon nag moom tàllal na leen loxo fas yeneen na ànd ak yéen ci lépp loo xam mooy seen yitte kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant mboolem daayira Moukhaddamatoul Khidma foofu nit mën a nekk ñu yor commission culturelle ñu yor commission yi nga xam ñoo nekk ci biir jumaa ji yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm damay ñëw maa ngi ànd ak sëñ Abdou Khadir bu sëñ Mour Muxtaar di suñu rakk di suñu xarit di ñaan yàlla mu defal leen jàmm ak xéewal ba li ngeen di liggéey yëpp sëriñ Tuubaa nangu leen ko suñu xol seet na jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa داري وثبتنه بالهادي الوفي